mbokk yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci seen ànd ñun ci rajo Rewmi FM ñu amaat mbégte tey euh, di fi dalal ki nga xam ni moom moo di Daniel Sarr bokk parti socialiste nekk candidat ca mairie bu Grand Yoff ñu am mbégte loolu dalal ko ñu nag moom. daañu waxtaan ci yëpp loo xam ne nag euh, tukkee na ci wàllum actualité li nga xam ne moom moo jot a xew ci réew mi surtout nag la gën a lu ñu gën a yitteel mooy la nga xam ne moom moo xew ci diwaanu Grand Yoff daa di waxtaanee li nga xam ne moom moo jëm ci mbirum élection yi nga xam ne daanaka moom nañu ñu dëgmal mu jëm ci élection locale yi mais laata loolu itam daañu ñëw ci li nga xam ne moo jëm ci actualité yi mbirum Lamine Diack mi nga xam ni moo fi euh, bàyyeekoo euh, ajuma ji nga xam ne nag moom la ñu génn wax itam ci euh, moom laata loolu rek ñu dalal suñu invité Daniel Sarr ñu ngi lay sant di la gërëm ci ni nga nangulee li nga xam ni moom moo jëm si suñu invitation. jërëjëf Dramé maa ngi lay gërëm si invitation bi. di gërëm également euh, ñëpp ñi ngay liggéeyal ci Rewmi FM. am na solo Daniel Sarr lu waaye loolu rek ñu daal di ubbee ak li nga xam ni moom moo jëm ci tiis mi nga xam ni moo dal réewum Sénégal ab génnub àdduna ki nga xam ni moom moo di Lamine Diack nekkoon na fi euh, njiital I2AF nekkoon na fi itam maire bu Dakar député ministre fii ci diwaanu Sénégal lan nga ñu mën a wax ci ki nga xam ni moom moo fi génn àdduna euh, moo di Lamine Diack. Euh, Dramé dañuy massawu Sénégal yëpp ndax euh, Lamine Diack dafa nekk kilifa bu bëggoon réewam bëgg aussi ndaw réewam nekkoon aussi pour ñun koo xam ne référence la exemple la woon euh, si parcours politikam am si parcours sportif si également parcours international bu mu def jusqu'au sommet de l'athlétisme mondial donc mu nekk tiis bu metti pour Sénégal yëpp ñu koy jaale kilifa yi yëpp di koy jaale waa Sénégal yëpp di ñaan yàlla yàlla yërëm ko te may ko aljana yu kaw yi mu nekkoon ku marqué loolu empreinte tam bu baax ci euh, diwaanu Sénégal ak li ko wër yeneen tiis yitam am na fi Moustapha Goudiaby nekkoon fii itam consultant fii ci rajo mi FM doon animé ak euh, Jacques Matar Gomis émission fi nga xam ni nag moom di jëm ci Rewmi Sport moom itam ab tiis bi nga xam ni nag daloon nañu ci ajuma ji nga xam ne moom la ñu génne euh, ci sama tur turu président directeur général bi Mbagnick Diop di jàll mbokkam yi ak famille am yëpp di ko jàll xam ni ñoom ñoo di waa groupe promo consulting bi yëpp sans plus tarder dañuy daal di waxtaan ci li nga xam ne moom moo jëm ci actualité bi omicron la déjà rek fii damay jël si sa li nga xam ni moom moo jëm ca xam-xam euh, wàllum pharmacien nga biologiste de formation ancien interne des hôpitaux ancien praticien itam gis nañ fi Covid 19 euh, bi ba tey bàyyiwuñ ba tey euh, ñu ngi wax variant omicron bi nga xam ni gane nañu daanaka léegi ñu ngi wax ñetti cas yi nga xam ni détecté nañ leen fii ci Sénégal benn ci IRSF ñaari fële nga xam ne moo di ci Institut Pasteur. Euh, ci sa xam-xam bi ni mel lan nga ñu mën a wax ci euh, Covid 19 boobu de dafa mel ni bàyyiwuñu. Euh, drame balaa may wax si Covid 19 bi dama bëggoon rek jaale sénégalais yëpp ñàkk seen frère seen waajur seeni mbokk. si <laughs> feebar bi ñu tuddee Covid 19. feebar bi dafa wone leneen si bu monde bi yëpp àdduna bi que benn dëkk kese mënul xeex feebar surtout lu ñuy tuddee ay épidémie que dafa laaj lëkkaloo bu mag si monde bi parce que xeetu feebar yooyu amuñu frontière te dañu nekk ci monde boo xam ne dañu ne village interplanétaire la nit yi dañuy déplacé wu donc ñi jóge Europe dañuy ñëw Afrique di dem États-Unis di dem euh, Amérique latine ainsi de ñu jàpp ne tey feebar bu mel ni Covid 19 wone na ne inégalité maanaam dafa yàgg ci monde bi te lu ko gën a firndeel mooy vaccination yi. su ñu demee côté Europe ñu ngi dem ba ay 60 pour cent de taux de vaccination soo ñëwee Afrique ñaa ngi à 10 pour cent de taux de vaccination loolu pour xeex épidémie bi au niveau mondial te indi ay gàllankoor te épidémie ak virus nu muy euh, nekkee. Euh, day faral di am ay lu ñuy tuddee ay mutation maanaam ay changement euh, yoo xam ne ay mutation génétique la. ko ci nemmeeku yoo xam ne c'est spontané peut-être duñ ko xaar loolu si dunduñu xeetu virus yooyu la bokk ñu am beaucoup de cas de mutation yoo xam ne daanoon nañu dégg variant delta ba nga xamoon ne jaaxaloon na nit yi ñu localiser woon ko en Inde ba ku nekk naan ah est-ce que jar nañuy ñuy demati Inde est-ce que duñu tëj frontière Inde ainsi de suite ñu toogaat ñu déggaat yeneen encore variant variant yooyu souvent duñ siy séentu mooy que dañuy gën a euh, propa gaaw propagé maanaam euh, de seen euh, pouvoir de propagation day gën a yokk ay gaaw day gën a gaaw comme variant bii nga xam ne moom la tuddee omicron variant bi spéci lu si lu si jaaxal nit yi mooy que dañu seetlu ne li nga xam ne mooy tax virus bi di gaaw a dugg si yaramu nit maanaam loolu protéine boobu moo def mutation te protéine boobu mutation bu mu def day tax mu gën a gaawal ni virus boobu di duggee si yaramu nit loolu moo tax lu ñu mën a wax population yi mooy ñu gën a moytu continuer di fàggandiku di sol seen masque mais aussi di raxas seen loxo. ñu dem surtout. vaccination bi c'est un appel man du yem sax ci Sénégal mais dama jàpp ne on doit actionner la solidarité mondiale pour que les peuples africains soient vaccinés parce que déséquilibre bi dafa ëpp. c'est vrai que vaccin yi ñoom ñoo koy liggéey ñu ngi saluer aussi. Euh, l'initiative bi nga xam ne président ci jël na ko Sénégal jël na ko pour pouvoir fabriquer des vaccins et on les encourage à investir davantage dans la recherche parce que nag mënuñu continuer di xaar tout le temps ñu ñuy indil suñuy garab. jot nañ ñu jot nañ ñu mun a defaral suñu bopp suñuy garab parce que am nañu xam-xam bi am nañu ay nit yoo xam ne jàngi nañu mën nañ ko donc nañ leen. jox ay budget accompagner leen parce que nag euh, dañu ne xeex bi yëpp ci àdduna bi xam-xam moo koy jiite te fu mu toll nii domaine biologie dafa nekk domaine boo xam ne état bi su ko maîtriser woon dina si gën a dugal ay renforcer ko dina ci gën a dugal ay koppar parce que non seulement dafa nekk secteur boo xam ne mun na créer beaucoup d'emplois am une chaîne de valeur ajoutée bu bu am solo mais aussi day positionner dëkk bi sur le plan scientifique mondial te ñu war a sant yàlla bu ñu amee ay nit comme ay professeur mbub yoo xam ne euh, dañ leen ràññee ci seen xarañte au niveau mondial les docteurs professeurs euh, docteur Amadou Sall et d'autres professeurs d'éminents professeurs qui ont toujours travaillé dans le domaine de la biologie donc plaidoyer boobu bëgg naa ko def. Mhm. état bi dégg ko. ñu dégg leen quoi. ñu xam ne secteur boobu bokk na si lu war def transformation économique bu Sénégal. mooy secteur biologiste. biologie bi pharmacie bi Sénégal su fa investir xaalis maanaam. mën nañ ci am. dañ ci gis njëriñ. bu baax a baax. léegi pour euh, terminer chapitre boobu tey est-ce que d'accord nga comme Omicron bi gane si nañu déjà ñetti cas gis nañ ko fi jotul ñu tëj frontières yi. non euh, pour man euh, pour man jarul ñuy tëjagum frontière mais parce que amaguñu information yëpp sur le virus mais baax na quand ñu ñaax population bi ñu continuer vaccination bi mais ñu ñaax nit yi aussi ñu continuer def lu ñuy wax. les gestes barrières di koy respecter fii ba ay semaines dinañ gën a am ay information ci virus bi parce que ba léegi am na lu bëri loo xam ne leeragul. est-ce que ñi vacciné wu dañuy am ci virus bi mun na leen laal ou pas des na. am na information yoo xam ne amaguñu. te il faut ñu am ko ba pare di doon ci jël matuwaay. moo gën a wóor parce que euh, soo buggee jël yenn décision yi nga xam day am impact économique bu rëy si dëkk bi il faut nga xaar gëstu ko bu baax. les tenants et les balaa ngay jël décision yi. léegi beneen secteur bi nga xam ni nemmeeku nañ ko ci semaine bi mu di secteur transport indi na ay gàllankoor yu bari grève bi euh, ñooñu góor xuma yi seen grève bi. métti na diis na est-ce que tey waruñu toog waxtaanee lépp yi mel ni bañ a am ci seen revendication yi nemmeeku nañ ci li nga xam ne moom moo jëm ci tracasserie bi nga xam ne moom la ñuy jànkoonteel ak li nga xam ne moom moo jëm ci pesum euh, SIE bi ci règlement 14 bu UEMOA bi est-ce que waruñu toog waxtaan xool naka la ñuy mën a jëmalee kanam li nga xam ne moo jëm ci mbirum transport. Euh, effectivement jar na waxtaan parce que dëkk. su fekkee da ko bokk nit yi donc dangay waxtaan ak ñoom te jàpp naa ne euh, revendication yu ay revendication yu légitime la état bi aussi war na si def ay jéego ndax lan ndax suñu économie parce que soo amee transport bu bloqué si suñu euh, réew nga xam dem bi ak dikk bi day gën a jafe day nekk ay milliards yu bëri yoo xam ne suñu dëkk dina ko ñàkk bés bu nekk te suñu koom-koom fu mu toll mënuñu di ñàkk milliards yooyu moo tax lu ñu mën a wax mooy que autorités yi toog te ñu ngi sant yàlla parce que dégg naa fan yi ne am na benn protocole bu ñu signé di si sant yàlla di ñaan autorités yi. ñu respecté ko itam fexe ba doxal ko protocole boobu su waree am fu mu sooxee ñu woowaat ñi nga xam ne ñoo doon revendiquer toog ak ñoom wax leen li fi am parce que lu ñu warul fàtte aussi dañu nekk ci période crise économique parce que Covid bi dafa gàllankoor lu bëri ci économie mondiale bi. te war nañ si bàyyi xel ba nga xam ne suñu état yi peut-être que euh, euh, du mu yombee woon si ñoom wala marge de manœuvre yi ñu amoon day gën a resserré wu donc moo tax ma ne nañu jiital waxtaan si euh, lépp jiital aussi njëriñu Sénégal. jiital itam njëriñu Sénégal kon euh, ki nga xam ne moom moo di Daniel Sarr bokk parti socialiste nekk candidat ci mairie bu Grand Yoff mooy sunu gan ci émission gox bi addu ci li nga xam ni moo jëm ci langum politique bi gis nga ko fan yi yëpp ñu ngi jax jaxi élection locale yi la ñuy laaj la ñuy waaj a dëgmal laata ñuy dugg foofu déggoon nga fi retour post premier ministre bi ba état wu Sénégal mi ngi def ay jéego ngir mu ñëwaat. Eh, xanaa da nga jàpp ni ab lajjite la woon la moo tax ñu daal di ko fiy jële nar ko fi indiwaat est-ce que du échec euh, duma duma ko analyser comme échec parce que politique euh, nit yi des fois dañuy toog ci contexte bi ñu def jël ay décisions selon contexte bi peut-être que éléments yi ñu am pour jël seen décision ci période boobu peut-être que ñun amuñu élément mais man personnellement dama jàppoon ne mënoon nañu bàyyi poste premier ministre. jarul ñu koy dindi. jarul ñu koy dindi parce que tout simplement euh, xam nañu dans la coordination de l'action gouvernementale lan lay def. est-ce que indi jafe-jafe yi yëpp tey. mun na nekk mun na nekk mais man jàpp naa ne dafa baax euh, si organisation boo gis mu am kuy coordonner coordination bi management la maanaam nan la ñuy boolee suñuy doole kii suy def lii kii suy def lii dina am koo xam ne mooy saytu lu ñëpp di def pour que mu am une harmonie dans am gouvernementale comme ñëpp balaa ñuy ñëpp di dem di jëmale ci njiitu réew mi. Oh, mu ñëw mu nekk mu coordonner action yi. effectivement eh, parce que ñoom ñëpp ku nekk dañ doon jug ne njiitu réew lañ bëgg a dem di gis. waaw parce que dañu nekk ci régime boo xam ne euh, njiitu réew mi daf ci am doole bu rëy. mun naa ne euh, décision yëpp moom moo koy jël. Euh, ma jàpp juste ne xëy na période bu ñuy jël décision boobu xëy na ñoom loolu la ñu gisoon mais pour man euh, poste premier ministre si période bu ñu nekkoon parce que ñu ngi jóge woon victoire bennoo Bokk Yaakaar. Euh, ñu doon avoisiner en taux de croissance économique autour de six di naan dañuy wuti sept pour cent pour man dañu waroon maintenir le premier ministre pour mun a accéder à ces résultats là très vite c'est vrai que entre temps euh, Covid bi ñëw na euh, am na lu mu gàllankoor ci suñu économie ba ñu wàccaat suñu croissance wàccaat ba à peu près un pour ma jàpp ne xëy na situation économique actuelle aussi. Euh, bu ñu am tey euh, moo bëgg aussi ñu amaat premier ministre pour mun a euh, redémarrer waat suñu économie donc du ñu ko analyser comme lajjite mais dañuy jàpp ne rek situation bu ñu toll nii xëy na moo bëgg ñu am un ministre un premier ministre qui coordonne l'action gouvernementale ba pare ñu mun a demaat sur une croissance économique boo xam ne dina permettre Sénégal ñu créer waat ay emploi pour la jeunesse leneen loo xam ne itam daal du ko waxtaanee mooy charte de non violence bi nga xam ni cadre unitaire euh, cadre unitaire de l'islam ñu ngi euh, jël ay initiative di waxtaan yi ci yenn euh, way kër politique yi coalition yi gis nañ Yewwi Askan Wi ñoom nee nañ duñ ko signé cadre bi itam njiitu réew mi président Benno Bokk Yaakaar recevoir na leen naka nga gisee charte bi ban appréciation nga ciy def képp ku jóg pour dox jàmm dañ ko war a sargal ndoklal ko jàppale ko parce que jàmm boobu su amee pour waa Sénégal ñëpp la euh, jàpp naa ne initiative boobu ñu jël war na mun a bokk ci initiative yi nga xam ne xëy na xamuñ ko mais war na jural jàmm Sénégal ci élection yi ñuy jëm ma jàpp ne képp koo xam ne yaa ngi ci champ politique bi jàmm moo la yitteel parce que jàmm su amul Sénégal ku nekk si ñun lu muy mbëbët pour yàlla may ko ko xëy na mu jiite réew wala leneen ak leneen jàmm su amul doo ko du neex a jiite réew du neex a jiite donc ñun ñëpp nekk si champ politique nañuy sàkku jàmm di wax jàmm di dox jàmm. mais yéen itam yéen lañ dénk pouvoir Benno Bokk Yaakaar njiitu réew mi fa la bokk. Euh, jox nañ leen lépp pouvoir est-ce que ñoom itam mënuñu matal lépp ngir jàmm mën a am. Euh, jàmm ñëpp la soxal ku ñu jox pouvoir ak ki nekk opposition ñoom ñaar ñëpp du ñu ay ennemi ay adversaire politique la ñu dans moment après suñu paree dañuy toog waxtaan. juste donc loolu jàmm rek ak si xëj. gis nañ fi Abdou Diouf Ablaye Wade Ablaye Wade ñëw dugg si gouvernement Abdou juuf liggéey ak moom ñu am jàmm bu mu paree bi Sénégalais yi nammee teg Ablaye Wade ñu voté teg Ablaye Wade Ablaye Wade ñëw encore si jàmm suñu dëkk bii luñ si bëgg mooy population wi dund si jàmm yee fitna bëgguñ ko fi. léegi ñi looy wax waa bor benn ñoom duñu ñu xëy na ñoom am nañu seen raison. Euh, du ma. Euh, juger li ñu wax mais jàpp naa ne bëgg nañu ñoom itam jàmm te su fekkee ne bëgg nañu aussi ñoom itam jàmm mu am ñoo xam ne dañuy dox pour jàmm am ci réew mi euh, jàpp naa ne ñoom ñëpp dañ ci war a ànd parce que jàmm su amee pour ñëpp la du doon pour ngóor gi kese mais opposition bi aussi parce que opposition bi am nañu ay mbokk ñu nekk ci nguur gi nguur gi am nañu ay mbokk ñu nekk ci opposition bi donc Sénégal defe naa jàmm rek moo fi xaj. jàmm rek moom moo fi xaj kon ñu daal di waxtaanee ci li nga xam ne moom moo jëm ci émission gox bi Daniel Sarr lañ ci daal di dalal Grand Yoff nekk kandidaa itam ci mairie ba alors danielle Sarr ñu dugg ci élection locale yi di 17 ngeen woon bu njëkk yéen Benno Bokk Yaakaar. Euh, mujjantal ga ñu tànn li nga xam ne moom moo jëm ci choix Cheikh baaxum ni moom mooy jiite liste benn Bokk Yaakaar bi euh, ban jàngat nga ci njëkk am d'abord balaa ñuy ñëw ci sa candidature bi. Euh, duma ma dugg si yenn détails si choix bi parce que suivre nañu processus bi fu mu démarré ba fu mu jeexee mu am lu bëri loo xam ne. Euh, maanaam euh, amul woon lu leer ci doxalin bi ñu gis ne aussi euh, bu ñuy def démarche bi am na ñoo xam ne dañuy ñëw créer ay candidature fantaisiste pour que tout simplement euh, bi ñu rallonger ko guddal ko pour am le maximum de candidats mooy maanaam loolu xam ne maanaam c'était euh, une façon de diluer les vraies candidatures et de faire euh, def en sorte que aussi euh, ñenn yi bañ a boobu ñun ñu jàpp ne euh, démarche boobu du woon li gën parce que politique mënuñ ko def sans négociation politique te négociation politique xam nañ nu muy doxee. nu muy doxe négociation politique maanaam da ngeen di ànd ngeen di seggi surtout su fekkee da ngeen teg ay critères pour ni ngeen di tànnee ki war a nekk seen candidat déjà soo tegee critères yi il faut ngay saytu est-ce que ñi déposer seen candidature yëpp est-ce que respecté nañu critères yi loolu benn la. ñu déposé woon seen candidature yëpp remplir wu ñu critères yi nga xam ne dañ ko fixé woon. yéen lan ngeen fixé woon. critères yi bëri woon na. bëri woon na mun naa si lim lu bëri ah. Euh, dañ lay rek. mun naa la ju jukkil bu si jiitu mooy euh, euh, nga am encrage communautaire maanaam nga jóge ci communauté bi ñu xam la ci communauté bi nga yàgg fa yàgg liggéey aussi ak communauté bi nekk koo xam ne aussi am nga expérience. si wàllu euh, nu ñuy jiitee association ay organisation am nga expérience aussi nu ñuy wutee xaalis mobilisation des ressources am nga expérience aussi si euh, wàllu euh, politique politique am expérience aussi si lépp lu jëm si doxalin Euh, si wàllu euh, gestion globalement ma jàpp ne. bu ñu tegee ci critères yooyu. ñi ci ñëw déposer seen candidature. lu njëkkoon wax mooy ñi nga xam ne ñoo recevoir candidature yi ñu xool est-ce que ñi déposer est-ce que ñoom remplir nañu critères yi ba pare mooy critère de recevabilité loolu amul defuñ ko buñ si waxee ñu ne non. Euh, dañu war a ñu ne leen le principe c'est le consensus. consensus amul woon. consensus c'est le principe. non dañu doxul sax pour consensus am parce que soo buggee consensus am da ngay jël ñii waxtaan ak ñoom jël ñii waxtaan ak ñoom di waxtaan ak ñoom ba yegg si si consensus bi. loolu yëpp amu ca. loolu defuñ ko lu ñu jéemoon def mooy woo ñi nga xam ne dañu bëgg a nekk candidat ne leen waxtaan leen seen biir. loolu pour man euh, du ut consensus parce que consensus di am ñoo xam ne ñooy yombalal waxtaan bi parce que yow soo bëggee man ma bëgg keneen bëgg nan ngay fekk ba boole leen ba kii mën a bàyyi ba kii dem il faut mu am kuy yombalal waxtaan bi kuy fexe xam si yoon bu ñuy jëm ban profil moo fi gën loolu yëpp defuñ ko bu ñu toogee ba euh, cappaandaw ga parce que dañu ne dañuy xaar président décider dañ koy envoyé liste bi ñun ñu jàpp ne euh, li nga xam ne waroon nañ ko def waroon nañ ko def dans le cadre de la coalition waxtaan ak ñoom pour mun a am benn regroupement am benn unité def nañ ko waaye nag kenn du ñu tënk. tànneef ba moo nekkoon problème ba. tànneef bi problème la. doxalin bi problème la bu ñu gisee loolu aussi euh, ñoom ñun ñëpp ñu d'accord ah président dafa war a tànn mais président suy tànn nga tegal ko liste boo xam ne moom kenn la fa xam mais kooku lay jël. te yéen yéen d'accordu leen ci choix boobu. Euh, du man maa d'accordul ci choix bi parce que sama sa sama personne peut-être ça importe. waaw mais mais d'accord. si moo tax nga génn. mais mhm. euh, mun naa ne tey majorité ñi nga xam ne ñu ngi woon dans le processus d'accord ñu woon si choix bi. ñoom ñëpp génn nañ. Euh, ñenn ñi génnoon nañu mais ñenn ñi puisque dañuy occuper ay yenn fonction <laughs> dañ leen di. Mm-hmm. rappeler waat à l'ordre ñu delluwaat. dañ leen mën mel ni ku leen xaw a noot. voilà mais li ma bëgg wax ci loolu mooy que euh, euh, politique mënuñ ko def. Euh, te du ñu jaar ci ay waxtaan mais si loo xam ne euh, ay waxtaan lu constructive lay doon maanaam luy tam day tabax xam nga unité soo ko dañ koy tabax kii su bëggee lii kii bëgg lii kii bëgg lii yow yaay tabax ba ñoom ñu mun a nangu ñoom ñëpp ànd loolu malheureusement amul parce lu ñu séntu mooy que xëy na ñi nga xam ne ñoo doon war a jiite processus boobu ku nekk yaa ngi doon xool lan nga war a am te xam nga loolu aussi soo jiitee benn processus négociation di xool lan nga war a am <laughs> donc boobaa mënatoo nekk kuy facilité te malheureusement euh, loolu mooy li nga xam ne euh, daf ñu gàllankookoon si Euh, démarche ak processus yu ñu jëloon. Mhm. Euh, boobu nag euh, ñun dès le dañ leen ne ñun bëgg nañu unité bëgg nañu ànd ak ñëpp mais ci kaw lépp tegu si yoon leer ñu xam ne lii nii la mais li nga xam ne pour nga expliquer ko dafa jafe finalement dañu ne nañu jël suñuy responsabilité loolu la ñuy def. jël suñu responsabilité defar suñu liste si turu parti socialiste ànd ak yeneen parti yoo xam ne aussi ñu ngi woon si processus boobu d'accord ñu woon ak li nga xam ne moom la ñu def ñëw ànd ak ñun porter euh, liste bi nga xam ne si euh, turu parti socialiste lañ ko def 88 la 628 84 84 wala 88 628 85 85 wala 88 628 86 86 loolu tax na ba ngeen yéen jël seen làngu bopp beru am ñeneen itam defar liste parallèle beru est-ce loolu itam mënut gis ni seen voix ci biir Benno Bokk Yaakaar moo nekk di tasaaroo ci biir Grand lu ma fa bëgg a leeral d'abord. mooy que ñun defuñu list parallèle. donc seen parti socialiste. ñun suñu parti lañ demee. ñeneen ñi def liste parallèle mun naa ne dañu bokkoon si ñuy doon contester choix bi mais punek ak ni nga ko contester euh, jàpp naa ne li ñu gisoon mooy que liggéey unité Grand yof si contexte bennoo Bokk Yaakaar lu tax mu metti mooy que APR bi nga xam ne moo jiitu mooy parti au pouvoir déjà ñoom ànduñu. seen biir seen biir. et la preuve liste parallèle yooyu ngay wax am na au moins quatre ñoo xam ne APR lañu donc suñu xoolee loolu. am na benn jàngat buñ si mën a def ñun ñu jàpp ne ñun euh, Grand Yoff dafa nekk dëkk boo xam ne partie socialiste a ko tabax ba pare partie socialiste def fa sax Grand Yoff da ngay dox sax di waxtaan ak ay mag ñu nee na ñun dañu nekk ay socialiste depuis Senghor ñeneen nee na depuis abdu Diouf ñeneen nee na depuis Tanor nga xam nan la partie socialiste saxee ci seen xol ñu jàpp ne war nañu au moins à Grand Yoff may leen ñooñu ni ñu daan dundee partie socialiste ñu dundee waat ko noonu parce que ay vrai militant ñu maanaam ñu dara mais bëgg nañu jox lépp partie socialiste donc ñu jàpp ne ñun ñoo leen amal. luñ leen war a delloo. ba tax na ngeen samp seen ndënd. moo tax it ñu samp suñu ndënd euh, wax leen ne ñu ngi nii pour dem utali euh, mairie bi waaye soo sampee seen ndënd aussi il faut nga am projet boo xam ne danga koy proposer waa Grand Yoff. daan si ñëw projet boo xam ne da nga koy proposer waa Grand Yoff tey lu motiver tey candidature bi ba nga jàpp ni war nga mën a tey dem sóobu ci élection locale yi nga xam ni moom la ñu dëgmal. sama candidature mun naa ne bëgg-bëgg askan bi la parce que euh, xëyuma rek ne damay nekk candidat euh, mun naa ne depuis bu euh, ñu amee session bi au sein du parti socialiste ba ñenn yi dem taxaw Dakar. man président Tanor daf ma woo ne ma dama bëggoon nga yogal ma parti bi Grand Yoff defaraat ma nga des fa voilà donc depuis 2017 ñu ngi liggéey à la base surtout au parti socialiste xanaa lu kenn yëgul la loolu yàgg na 2017 <laughs> lu kenn yëgul la amul bruit amul dara non euh, am na am na am waaye comme ni ñuy wax ñax buy sax kenn du ko dégg waaye garab buy daanu moom di ko dégg donc ñu jàpp ne ñun rek dañu nekkoon ñax buy sax moo tax kenn du ñu dégg. ci biir commune bi. ci biir commune bi ñu ko ne di liggéey à la base di waxtaan ak population yi di leen remobiliser waat si parti socialiste. donc liggéey boobu ñu daan def nag defe naa moo tax tey ñu ñeme toog ne dañu bëgg a nekk candidat ci par ci turu parti socialiste. parce que jàpp nañu ne parti socialiste quand am na ci biir Grand Yoff une base réelle te ñun ñoo am pour liggéey pour que base boobu dellu si waat ñu mun a yoraat mairie Grand Yoff te mag yi ànd ak ñun ndaw ñi euh, pare nañu pour ñëpp ñu soobu si élection yi ñuy dem ngir yàlla may ñu ndam bi ñu mun a jëlaat mairie Grand Yoff yor ko yorin bu rafet jox leen projet bu bees tàkk boo xam ne dina permettre commune de Grand Yoff ñu décoller définitivement. boo waxee projet. day mel ni kon li fa nekk tey ci biir Grand Yoff demul dikkul. waaw. Euh, ki fa nekk mooy Madiop Diop. li li li li fa nekk. Hmm. Euh, defe naa waa Grand Yoff defal nañu seen bopp seen bilan ba pare. ah bon. defal nañ seen bopp seen bilan. mooy lan parce que euh, xam nga dañuy dugg si kër si kër yi si quartier yi di waxtaan ak nit ñi mais dafa am loo xam ne day dellu si tout le temps. mooy lan. gisuñu maire bi yëguñu suñu bopp si mairie bi. loolu noo ko mën a tuddee. waaw mun nañu am jàngat yu bëri yéen ay journaliste ngeen xam nga ne mun ngeen ko gëstu mais man benn jàngat laa si njëkk a def mooy que xëy na ñoom projet bu nga xam ne ñoom la ñu am pour population population sentirul projet boobu te man yàgg naa liggéey si ay projet soo buggee population bi yëg la si projet bi ngay def. am na ay doxalin boo war a jël. kon doxalinu maire bi daal moom la moom méngoowul ak li askan bi bëgg. xëy na su ma la déggee. xëy na noonu laa ko mën a jàppee ma ma jàpp ne euh, Grand Yoff tey euh, mérité na lu ëpp lu mu am. dafa waroon fas dépassé fii tey. waroon na dépassé fii parce que Grand Yoff léegi dafa nekk ci xolu Dakar damay caricaturer ne leen Grand Yoff léegi buntu dakaar la. pour dugg Grand Yoff da ngay jaar otowot da ngay jaar VDN yooyu ñooy limitu <laughs> Grand Yoff soo fa jaarul ci biir Grand Yoff ngay xuusee pour dem ma jàpp ne commune bu mel noonu wax nañ ko defaraat bu mu méngoo ak buntu kër sooy defar sa bunt sa kër yow soo koy defar da ngay defar bunt bu rafet. waaw dañuy lan moo doxul Grand Yoff ban secteur. Euh, assainissement wala euh, ci njàng njàngale mi foofu école élémentaire yi euh, xàll yi lan lan la lan mooy priorité bi tey. Grand Yoff soo buggee dégg-dégg lépp urgence la. infrastructure yëpp urgence la muy infrastructure sportive muy infrastructure marchande infrastructure boo munti jël lépp urgence la à Grand Yoff benn firnde bu ndaw mun naa la ko jox. nga xool état civil Grand Yoff nuñ ko tabaxee man tout le temps damay ne soo xoolee état civil bi nuñ ko tabaxee rek di nga xam lan mooy ambition maire bi fi nekk parce que dama jàpp ne ambition am foofu la tool si nu mu ko tabaxee. maanaam nu ko tabaxee. parce que sooy tabax état civil tabax ko comme kuy tabax kër bu ñu war dëkk respecté wul norme batiment boo xam ne dafa war a Euh, un lieu public. fu nit ñi war ñëw fu nit yi war a ñëw. Hmm. Euh, ça pose problème et la preuve euh, bi événement yi amee mais ils ont connu des sinistres au niveau donc de l'état civil am na ay xale yoo xam ne retrouvé tuñu seen registre loolu su tabax bi méngoo woon ak ni état civil war a mel respecter norme de sécurité xëy na sax nit mën na dugg ba foofu ba génn te du xam sax fan la. document yooyu nekk suñu jëlaatee yeneen tey soo demee Grand Yoff amuñu infrastructure sportif fu ñuy fubalee nawetaan euh, toog nañu ay deux saisons wala plus de deux saisons yoo xam ne euh, équipe nawetaan yi nekk Grand Yoff ASC yi amuñu subvention de la mairie ñoom kenn jotu si subvention kenn jotu si subvention ñaari at mi ngi nii ñaari at ngi joxuñ leen subvention wala lu ko ëpp donc ñaxtu bi ci boor yëpp la man ma nekk ci secteur bu sensible mooy secteur de la santé di waxtaan souvent ak population yi di déglu aussi seen njàmbat ñu jàpp ne commune bi effort yi mu war a def pour que population bi mun a accéder facilement ci structure de santé yi dafa des. ah maternité ngi fële. waaw euh, maternité mu ngi foofu euh, chaque fois dañuy wax ne <laughs> voilà mère bi bilan am tabax na maternité bon lu baax la waaye ku xam euh, nu ñuy tuddee pyramide sanitaire nu ñuy organiser système de santé Sénégal di nga jàpp ne Grand Yoff avec plus de deux cents cinquante mille habitants environ mérite plus qu'une maternité. dafa war a weesu foofu. voilà parce que Grand Yoff amalul boppam centre de santé bu jógee ci nguur gi soo jëlee arrondissement Parcelles Assainies commune quatre communes ñoo fa nekk commune bu nekk am na centre de santé ci biir mais Grand Yoff amul centre de santé. récemment lañ leen jox sabu municipal pour dugal ko ci gestion municipale bi mais ma ne loolu doyul parce que norme sanitaire bi ci PNDS dafa ne dañu bëgg un centre de santé pour cent mille à cent cinquante mille habitants maanaam fu ñu am cent wala cent cinquante mille habitants war dañu au moins am fa benn centre de santé ma jàpp ne Grand Yoff war na am centre de santé en plus du SAMU municipal pour ñu mun a am fu ñuy fajoo foo xam ne jege na leen. amul. centre de santé boobu amul donc ay poste de santé ñoo fa nekk moo tax ma nee la seen gis-gis foofu lay am. que donc gis-gisu maire bi Grand Yoff lay am. puusul paasul. non c'est pour man sax yeggul fu ñu bëgg a yóbbu Grand Yoff ñun. yeggul fu ñu bëgg yóbbu. donc bilan bi. bilan bi waa Grand Yoff ñoo la koy defal. parce que euh, ñun lu ñu waa population bi di wax rek man pour man loolu mooy bilan bi. parce que xam nga nit américain dafa tàmm ne perception mooy réalité maanaam ni ngay séenee nit loolu mooy sa dëgg. donc population bi nu ñuy séenee gestion municipale loolu mooy seen dëgg ñoom loolu la ñu gis dañu gis ne maire bi sentiruñ ko à Grand Yoff maire bi sentiruñu ko Grand Yoff ba tax na yow nga am projet. ban projet ban projet nga am tey pour waa Grand Yoff ban projet. pour waa Grand Yoff am nañu projet pour sukkali Grand Yoff parce que wax naa leen ko dañu jàpp ne Grand Yoff lépp urgence la secteur boo jël urgence la ñun ñu toog. waxtaan si xalaat si bind si nee leen jàpp nañu ne il faut ñu def benn programme opérationnel d'urgence pour sukkali suñu Grand Yoff ñun ñu tuddee ko pousse Grand Yoff ca kanam te programme opérationnel d'urgence boobu ñu ngi koy tënk si juróomi axe ban juróomi ponk yoo xam ne soo ko jàppee daf lay delloo si ay actes yu ñuy posé su yàlla defee ñu am ndam pour que Grand Yoff mun a méngoo ak lu ñu bëgg bu si jiitu mooy nan la ñuy yombalee population bi ni ñuy jotee si faj bi ak nu ñuy jotee si lekkool yi xam nga sànq am na loo wax est-ce que école yi ñoo doxul wala déet xam nga éducation compétence transférée la santé aussi tegi donc nu ñuy defaree ay maternité noonu la ñu war a defaree ay école mais yàggul ay nit bonne volonté ñoo tabax ay toilettes pour une école publique là-bas boobu maire bi fan la nekkoon ma jàpp ne suñu doom yi Grand Yoff ban école la école Mor Fall euh, ñu jàpp ne suñu doom yi mérité nañu lu ëpp li ñu leen di jox actuellement mérité nañu quand même ñu am benn cadre boo xam ne si c'est yi sooy jàngee nga jàngi fu set sooy am toilette nga am fu set parce que dafa am lu ñu bëgg a dugal ci seen bopp bëgg ñu jàng ko xam ko mais su fekkee dañu bëggal jugal set ak xam surtout am seen ak ak yelef seen citoyenneté yëpp ñu bugg ko dugal seen bopp te fu ñuy jàngee da nga setu fa da nga nekk boobaa day jafe. ak ban donc loolu bokk na si li nga xam ne ñun dañu jàpp ne si axe boobu euh, ñu jàppale école publique yi fa nekk yëpp fexe ba. Euh, li nga xam ne mooy seen jafe-jafe mairie bi mun si taxaw pour que école yooyu dox mais pour ko aussi ñu mun a jàppale xale yi surtout waajur yi nga xam ne euh, fay fourniture sax day nekk ay jafe-jafe pour ñoom. ah mairie bi prévoir lu subvention ci loolu. Euh, wax dëgg yàlla ba fu toll mosuma dégg ne mairie bi jël na subvention jox ko école yooyu pour que parents yi am loo xam ne au moins. mun a wàccoo ak dinañu wàcc dina wàccoo ak ñoom te ñu jàpp nañu ne loolu lu war la parce que doom yooyu di jàng ci école yooyu suñuy doom la doomu commune bi lañu te ëllëg suñu nekk tekkee pour commune bi dañuy jëriñ commune bi ñu ñu jàpp ne ci suñu programme quand même dañu war a jàppale ñooñu ba nga xam ne ëllëg dinañu mën a def seen jàng normalement te société soo ko bëggee tabax il faut que nit yi jàng il faut ñu jàng am xam-xam pour que yow lépp li ngay teg comme stratégie de développement nga am ñoo xam ne ñoo la siy accompagner pour mu dox mais su fekkee xale yi suñu xale yi jànguñu wala seen jàng day am ay jafe-jafe. donc boobaa dañuy am benn société boo xam ne euh, dina jafe pour ñu dem ci développement donc au niveau local ñu xalaat aussi ne ñooñu nekk ci commune bi am na lu la commune bi waroo ak ñoom ci wàllu wérgu yaram état bi def na benn euh, jéego si wàllu mutuelle de santé mais le taux de mutualisation bi euh, à Grand-Yoff n'est pas très élevé au niveau national on cherche à atteindre soixante quinze pour cent on l'a pas encore atteint mais au niveau de Grand-Yoff quand même euh, bi élevé wul donc ce qui fait que euh, nit yi ni ñu war a ni ñu leen war a yombalalee jot si faj bi. du yomb noonu. maanaam mun nga tabax ay infrastructure mais dem si jafe jot si jafe donc si suñuy politique soo tabaxee ay infrastructure aussi da ngay teg loo xam ne dina tax dem foofu. yomb yomb. ñun si suñu programme loolu la ñu tënk pour yombal dem boobu. ak ban te euh, aussi si nu ñuy gérer urgence yi. Euh, parce que da ngay toog sa kër am sa urgence doo am koy woo xamoo koy woo. mu metti mu metti mais commune bi il faut mu jël ay initiative pour am ay dispositif boo xam ne day am ay ambulance médicalisée yoo xam ne dañuy dem di seet di jëli nit yi su fekkee yow am nga soxla foofu te loolu dañ koy def sous forme de projet ba nga xam ne non seulement projet bi dina mën a fay boppam ba ñi nga xam ne dañ fay liggéey di si gis seen bopp mais. nekk loo xam ne day rentabilité. exactement parce que dañ koy def sous forme d' entrepreneuriat social xam nga da ngay gis ay problème nga identifier leen pour résoudre problème yooyu nga créer ay projet yoo xam ne dañuy ñëw pour résoudre problème mais projet yooyu soo koy créer mun nga def benn business model boo xam ne dina la permettre di nga récupérer de l' argent boo xam ne moom ngay réinvestiraat dans le sur le plan social donc yooyu la teg comme modèle. loolu yëpp foo nar a utee nga xam ni war na ko mën a. ci biir ci biir commune bi ci biir commune bi. c'est faisable parce que c'est faisable dans la commune en discutant et en expliquant aux populations parce que xam tax ñun suma ko suñu commune dañu jàpp ne euh, exploité guñu potentiel bu fa nekk yëpp. des na des na parce que commune Grand Yoff nekkatul Grand Yoff traditionnel kese commune Grand Yoff. cité yu bees yi. ci lañ bokk si lañ bokk donc ñu war a am un plan d'urbanisation globale boo xam ne day harmoniser la commune parce que tey soo demee fii lii nga fay fekk soo demee fee nga fekk fa leneen da nga yaakaar ne nekkoo dans la même commune ba sax y avait des velléités ñu nekk ci cité yi bëgg ñu amal leen seen commune bopp ñu jàpp ne loolu du doxalin bu gën. dañ boole ñëpp. voilà les grands ensembles ñoom ñooy def résultat donc ñun ñu waxtaan ak nit yi wax leen ne lii de yàlla su defee ñu ñëw dinañ ko saafara nuñ koy saafaree nag yoon bii la ñuy jël li ma def nii comme proposition mun nañu dugg plus en détail si suñu programme. ci tënk rek ba nga xam ne euh, dina permettre quand Euh, lépp loo xam ne yombalal nit yi faj la ak jàng day nekk loo xam ne commune bi daf si indi saafara saafara ba pare indi si aussi apportam ba ñu sentir commune kon da nga gis ni boo jëlee mairie bi ba nga bëgg commune bi sentir liggéey bi nga xam ne moom ngay amal foofu noonu njëriñ bu leen mairie bi amal si si je njëriñ ñi mairie bi laay wax exactement dañu bëgg ñoom ñu xam ban njëriñ na leen mairie bi am. sentir apport bi ko exactement. xam nga sentiment d'appartenance dafa am doole nit ki soo amee soo buggee dundal sentiment d'appartenance boobu il faut nit ki am lu muy yëg mais am aussi lu muy gis muy dugg si moom apport bu mu koy indil donc loolu la ñu bëgg parce que fu ñu jaar yëpp même wax ji la ñuy wax donc bëgg nañu am suñu. mettre en place suñu programme. indi seen touche itam indi suñu touche ba nga xam ne population dinañ sentir seen bopp si di nga xam ne moom la ñuy def. assainissement itam bokk na lu la xaw a soxal. foofu laa doon ñëw si ponk mooy mooy mooy le deuxième point ñu tuddee ko cadre de vie bi ak hygiène bi xam nga assainissement dañu naan du compétence transférée mais assainissement dafa ëmb lu bëri te lu xam ne njeexitalu ay environnement santé ak yooyu. environnement santé ay compétence transférées la donc assainissement à proprement dit soo jëlee tout ce qui est réseau yi effectivement état koy def notamment avec ONAS mais ma jàpp ne am na liggéey boo xam ne mairie mun na si jàppale waa ONAS muy liggéey sensibilisation conscientisation ak protection de nos investissements parce que investissement bu ñu def sa commune jàppale ne population bi yëpp lañ ko defal parce que am na ay comportement yoo xam ne day contribuer di euh, fat canaux d'évacuation parce que maa ngi fàttaliku bu ñuy euh, tabax euh, canal bu jaar Front de Terre boobu ay ndaw lañu dañu doon daw di dugg ci biir kanaal bi di daw ci biir lu yàgg voilà donc su ma fàttaleekoo loolu damay gis ne pourtant bu ñu koy tabax lu yaatu la woon lu yaatu la woon donc xëy na ay infrastructures yu mel noonu tey moom la Grand Yoff soxla mu jaar ci biir commune bi parce que xëy na population Grand Yoff nu mu tolloon avant tollatul noonu donc jaadu na mu amaat des investissements yoo xam ne état daf ko fay def pour changer canalisation yu fa nekk jox leen dimension yu gën a am doole parce que loolu aussi dina bokk ci lu ñuy dimbale mais fu ma nee mairie bi mun na si intervenir mooy surtout si volet sensibilisation protection curage de caniveaux ñu koy def régulièrement parce que su fekkee euh, lii dafa gaaw fat mais doo xaar ba nawet di waaj a jot ngay naan da ngay def curage de caniveaux dañ koy def régulièrement di entretenir gaa du yow yaa ko investir. ak implication itam askan wi. population bi foofu lay waxee sensibilisation. voilà parce que ak formation. Hmm. parce que dañu dañu nekk si dëkk boo xam ne on a quand même un taux d'analphabétisme qui est te buñ koy fàtte dañ koy sóoraale moo tax bu ñu tàyyi di wax ak nit ñi parce que wax boobu ñuy wax ak ñoom mun na defar lu bëri ba yi xëy na nu mu daan fàttee dootul fàttee noonu donc loolu bokk na si li nga xam ne ñun dañ ko def programme pour am benn approche communautaire boo xam ne dañ koy teg pour di waxtaan ak nit yi di leen encadrer di leen former di leen saytu ba nga xam ne xëy na affaire bi nu mu tolloon dootul toll noonu dina gën a wàññeeku. ak ban ponk encore. beneen ponk bi euh, mooy lu ñuy tuddee la transformation économique et sociale de la commune parce que jàpp nañu ne commune u Grand Yoff il faut que ñu yokk koom-koom bi parce que budget bu ñuy naan deux milliards cinq cent trois milliards alors mooy ah, deuxième budget après Dakar parcelle yéen yéen am beneen budget bi. bon euh, euh pas Dakar Dakar Dakar euh, duñu comparé wu ak. Dakar pas Dakar après euh, parcelle book yéen la. non non non duñu comparé wu ak ñooñu man dama jàpp ne budget dafa war a méngoo ak bëgg-bëgg. askan bi ak dëkk bi ak réalité dëkk bi. budget Grand Yoff pour man dafa am Euh, am problème opti du tubaab naan optimisation parce que ni ñuy recouvrer recettes yi munoo assuré wu à cent pour cent que recettes yëpp dañuy dugaat ba pare ma jàpp ne aussi ñi war contribuer yëpp est-ce que ñu ngi contribuer est-ce que aussi informel bi nga xam ne bëri na foofu suñ leen dimbalee restructurer leen est-ce que du mun a yokk la force contributive maanaam doole ñi nga xam ne dañuy joxe. comme dans la si comme bi. parce que loolu mun na bokk si li tax ñu yokk budget bi ma jàpp aussi ne si transformation économique boobu il faut que ñu dugal si euh, li ñuy tuddee jumtukaay yu bees yi euh, nouvelle technologie. pour am efficacité si recouvrement yi am efficacité si identification ñu ñuy ràññee ñi nga xam ne ñoo war a dugal contribuer ba pare def benn partenariat ak ñooñu ba nga xam ne ñoom dinañu sentir li leen mairie di defal en contrepartie ñoom ñu mun a contribuer gagnant gagnant lay doon gagnant gagnant ñu jàpp aussi que si transformation socio-économique boobu xam nañu ne koom-koomu Grand Yoff yëpp ci commerce bi la nekk jën ak jaay donc jot na aussi ñu moderniser <laughs> équipement marchand yi man marché yeeg yooyu il faut que mu gën a moderne ñu gën a am place même su fekkee il ñu dem ci kaw pour que ñi nga xam ne dañuy jaay ci mbedd bi au moins ñu mun leen absorber parce que suñ ko deful encombrement du fa dañ accident yi duñ foo wàññeeku. parce que nit yi dañuy obligé di dox ci kaw tali yi. parce que amuñu fu ñu dox fu ñu war a dox dañ fay teg taw donc au lieu ngay dàkkanteeg nit yi chaque jour ngeen di dàkkanteeg jóge fii demal fee mais trouver leen ay solution structurelle pas ay solution conjoncturelle te ñun suñu programme sukkali suñu Grand Yoff mhm. ay solution structurelle la ñuy indi pas conjoncturelle mhm. beneen ponk bi. waaw euh, boo xam ne aussi bi dab nañ euh, xëy na jeunes yi la gën a soxal ak jigéen ñi mu tuddee ko entrepreneuriat des jeunes et des femmes loolu yëpp dañ koy mettre en place pour yokk la force contributive parce que jeunes yi soo leen tàggatee ci entrepreneuriat dimbale leen ñu jàpp ay financement plus la en place seen entreprise dañuy bokk ci ñi nga xam dañuy contribuer aussi dans la commune donc ay stratégie mobilisation de ressources la ñu yokk si aussi si stratégie yi nga xam dañuy développé lu ñuy tuddee ay partenariat public privé pour tabax ay infrastructure yu viable yoo xam ne commune bi dina si gis boppam yeneen partenaire privé gis si seen bopp mais population bi aussi gis si boppam bu ñuy mujjee mooy wàllu sécurité ponk bu am solo la boobu bu am solo la Grand Yoff boo xam ne ñun ñëpp daf ñu yitteel lu tax mu yitteel ñu parce tey ñu ngi euh, xañ ay doomu Grand Yoff liggéey wala leneen parce que tout simplement dañuy jàpp ne Grand Yoff waaw euh, ñu fa dëkk xëy na nu ñu mel euh, méngoowul agression yi bëgg na foofu ak yeneen ak yeneen. te du loolu ba yow sax soo ñëwee ne Grand Yoff laa dëkk sax nit yi xaw la ragal ma jàpp ne loolu di loo xam ne mun na fa daj mun na fa daj te nuñ ko fay dindee. mooy waa Grand Yoff ñoo ko fay dindee. parce que koñ boo dem ñi fay agressé xam nañ leen ñi fay def leneen ak leneen xam nañ leen. identifier leen. xam nañ leen nit yi xam nañ leen dañ leen di xam parce que si ay njaboot la ñu jóge ñu jàpp ne tey jot na quand même ñu activer li ñu li euh, waa ministère de l'intérieur di wax système sûreté pour ñu am ay quartiers sûrs nga xam ne day impliquer imam yi. Euh, abbé yi. ñëpp euh, délégué de quartier yi bàjjenu gox yi kilifa ak notable yi nekk ci quartier yi pour ñuy waxtaane problème mu askan yi ci biir quartier yi. mooy saafara bi. mooy saafara bi parce que làkk bi nga gis muy ñëw nga teel ko fay moo gën ngay bàyyi bu mu nekk daay. dootoo ko mën a fay. boobaa day metti boobaa day metti ok ñu euh, daanaka waxtu bi euh, xoj nañu. Mm-hmm. Euh, ñaar ci minute moo ñu dese ñu bàyyi la rek nga sant ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu doon déglu en tout cas di rafetlu bu baax waxtaan bi li nga fi jukki comme projet am na solo ñu ngi ci njeextalu émission bi ñu bàyyi la rek le dernier mot. di di leen gërëm di leen sant bu baax a baax euh, di leen euh, encourager aussi si mission bi ngeen jël euh, réew mi ngeen am tur bu <laughs> mag <laughs> ah, ñu tuddee leen réew mi defe naa loolu firnde na rek ambition bi ngeen am hmm. donc dañ leen di ñaanal yàlla rek yàlla may leen tawféex jërëjëf may leen aussi ngeen jot lu raw li ngeen doon euh, prévoir. Mhm. ba lépp loo xam ne sumb ngeen ko aussi euh, yàlla may leen si ndam. di ñaanal euh, seen président Mbagnick. Mhm. voilà nga xam ne. royukaay royukaay la doomu Sénégal la ku bëgg Sénégal la. Mhm. yàlla na ko yàlla may gudd fan. lépp loo xam ne mu ngi koy yéene ndaw ñi. yàlla may ko mu yeggali ko. te loolu amal njëriñ Sénégal yëpp. donc ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant di sant ñëpp ñi leen di déglu di leen suivre. ok jërë ngeen jëf. merci beaucoup jërëjëf ci kàddu yu rafet yu yooyu ne ci à l'endroit du président directeur général Mbagnick Diop kon ci note boobu la ñuy daal di tëjee émission bi jox leen dig daje. Euh, beneen dimanche ak beneen invité fii ci euh, rajo Rewmi FM ci émission gox bi di gërëm Adama Diallo moom mi nekkoon ci xarala ji